jot nii vidéo nag a jot moo leen vidéo mën a xam mbokk yi beneen actualité de la semaine soxal na mbirum coowul seentu weer seentu weer de li naan seentu asamaan moom jërul xëccoo jërul buuxante wolof naan kañ la fi coowul ginaar ba ñuy ngalaa bi coot waaw ana ngir dimbali suñu dimbali ngir jaamu yàlla ngir saytu weer te yàlla tax jullit yi mën ci tënku woor ana lu ci jër xu xëccoo post lu ci jër mais malheureusement xaalis moo ca nekk rek nañ ko wax on s'interroge ci lu ca nekk ci xaalis gis nañ bu baax a baax Oumar Oustaz Oumar Diène coowam ak grand euh, kii di euh, imam bu grande mosquée bu Dakar di imam Moussa Samb mais loolu lépp mënoon na fee bañ am ay dinaa la mas a siiwal ci public beeg nangam sangam dañoo am un contentieux mais seen contentieux lu ci suñu yoon mais est-ce que tey jii li ñuy xaar ci la commission ci croissant lunaire bi mi ngi koy def comme résultat malheureusement non parce que tey jii li ngeen war a gën a xeex mooy l'unité des musulmans ci wàllum les les fêtes religieuses ñu julleendoo benn julli ñetti weer yàlla wax dëgg yàlla nag ku ñëw aliwa ci daara sax xam ne benn weer am ak benn jant mais Korite ak ñetti weer ñetti weer trois lunes kon ana seen liggéey bu dee da ngeen di bàyyi xel li ci ginnaaw di xaalis bi di ci état di dugal moo tax foofu c'est important que ñu am des rapports yu ngeen war a présenter yoo xam ne war nañ koy xam parce que musuma gis commission bi présenter woote euh, conférence de presse présenter ses rapports d'annuel li muy produire li muy li muy dépenser parce que dégg nañ fi gis nañ fi ne euh, ay xaalis yoo xamante ni mais ku nekk xam ne Arabie Saoudite day financer ay kuréel fii ci Sénégal day financer ay kuréel fii ci Sénégal kon li ci nekk mooy ni ci xëccu wàllum commission bi du leen lu seen intérêt personnel moo leen taxa a jóg malheureusement bu ñu demee ba nag la pouvoir temporel di yëpp le pouvoir spirituel du ñenn ñu dul taxawaay yu mel nii di di di di honoré wul benn yoon ci wàllum taxawaay bi ñu war a taxaw te loolu dafa war a deñ dañu war a jiite juma te yàlla tax bañ a jiite juma ngir fay ga ma mairie bay fay dañoo war a saytu weer wi te yàlla tax ngir bañ koo saytu ngir fay ga ma cay jot ngir la ma cay am mais dañu war a def ngir yàlla suñu borom bu dee yàlla moo tax ñuy def mais malheureusement y a beaucoup de bruit autour de cette commission malheureusement lan lu ma ci ñaawlu aussi fan yee ñoom ñu def ko imam mosid imam Ahmed Iyane Thiam yal na yàlla suñu borom oyof suuf ci kawam te yokk yërmande te jégal ko gis nañ bu baax liñ ne ay plus de 33 millions xaw ma mais loolu dafa rafetu sëñ bi sëñ bi nit ko dund waxoo ci loolu waxoo ci dara ba suñ borom moom ko te xam ne ëllëg dina la moom ngay wax ci ginnaawam lu ñaaw loolu rafetul dafa ñaaw rafetul nañu dellu si xel yi bu dee diine moo ñu ñor nañu dellu si xel yi te bañ a gàccaat suñu diine mais malheureusement yéenay gàccaat seen bopp parce que ku ne xam ne ne moo tax ma ne seen commission bu doxoon na mu war a doxee ku ne xam ne ni Touba ak Tiwaan ak Medina Baye mais ñooy Sénégal ñooy diine ji ñooy tarixa yi tarixa Cheikh Ahmed Tidiane si tarixa Xadriya tarixa euh, Mouridiya hmm? ma ne bànqaas yooyu nga xam te ñoo fi teewal ay xalifatul am fir add lañ teewal fi suñu borom mais bu dee ñoom ñoom tey jii amuñu ah ñoom bu weer bi jotee nit ñi di leen diglu bañ leen di diglu mooy seen liggéey doxul li ngeen war a def mooy toogaat def lël waxtaan seen biir fexe ba kuréel gi yaatu fexe ba li ngeen di tënk mu doon wenu say tank def leen ko di jënd xaalis bi ñu leen di fay ak privilège ak oto yi ngeen cee am ak nangam sàngam da ngeen di nax seen bopp rek wante du dem fenn wasalaam. ngeen mën a jot mën a xam nga xam ne